naan ma rib kaw kaw. non fekkee dégg nga wolof. dégg li nga wax. voilà nay leer. ku bëgg a kay boo demee mbeex ma kay da nga fa fekk 1000 personnes ñuy féexlu. kon jéem a kilim bi 1000 personnes xaju fi jaaxaluñu. waaw ok. <laughs> dafa am loo xam ne maanaam na ci yow ne ne jarul wax ji di bari am na loo xam ne bu jotee rek daañu ko jëf. turandoo de ku mën a football. <laughs> loolu après la. loolu après la <laughs> mais dinaa ko xamal ne moom nee ay mbokkum dafa mer dañoo mer man samay mbokk seen seen xel dafa dal ah yéen meru ngeen seen xel dafa dal te dama leen di woo ñoom ñëpp waa Tëngéej li ko dagget Ngor Yoff Wakam Sendou mhm. Tubaab Jalaaw Jokkul Cëwleen Bargny mhm. bàyyi ma sama mbokk lébu yëpp na ñëpp ñëw di woo waa Tëngéej gépp mhm. di woo waa Tëngéej gépp di woo di woo nag sama mbokk yi waa Tiwaawan di woo waa Touba di leen xamal ne leen seen doom seen rakk seen am di jàmm am na combat komba bi ñu jëm nii nag doon na combat boo xam ne nii combat bu am importance. parce que est-ce que xam ngeen combat bi fu mu leen mën a am importance déggoo si début dama la ko wax dama ne la macha allah naanaan la. et puis booy bi tamit tituwaay waat na la parce que nee na moom moo tax ngay bëre grand combat. waaw sant yàlla kon moom moo tax may bëre grand combat. ko kon sant yàlla sant yàlla mais idéal yi du ma bàyyi ma fen am na yeneen combat yu nekkoon sama samay nopp toq na su noppam yow adversaire yi yu ko gën mais amaana nag idéal yi mii la yàlla tuddoon na moo war a tëgg sama combat idéal bi la yàlla tuddoon moo war a tëgg sama combat kon tey idéal yi dañ koy sant bu baax a baax a baax a baax taxawal naa nag ay combat yu bëri macha allah di nga xamal ne que tamit ay jeunesse la ñu ñëpp ay morom lañ xëcc bu daggul dik di ko ñaanal jàmm lu wax ne làmb ji ñun ñoo ko bokk ñu ñoo ko bokk nañ ñëw ñu neexal ko ñu bëree kuñ ci fay lu ko jar nga bëree kuñ fay lu ko jar nga dem xoolee li lay gënal. booy bi am na looy moytu ci moom. loolu mooy lan. damay laajte. mooy loolu mooy lan. maanaam mooy ma ne moytu rek moytu nangam naam maanaam man maam ñaaw ma ne la moytul mu song la moytul ngeen loolu foofu laay waxee quoi. amul lu may moytu su aw ma lenn lu may moytu si moom man li ma amal solo mooy bu bees ba ne samay mbokk ñëw ñu daan booy bi ñibbiwaat. lii rek solo. ñu daan ka ñibbi si waat loolu kese mu amal solo si làmba ji du leneen di kii du ku may daan. di yorul bëre bi yorul doole ji. maa ko dàq bëre fuuf yemuma si catal wex bu fekkee day wax mais tey du bési wax. barke alxuraanu kan moo ki joon taabal ma daan la fii léegi. nañ tey taabal xëccuñu taabal ji de xëccuñu taabal ji xëccuñu taabal ji eh, taabal ah. yee booy bu leen xëj taabal ji mukk. xale laa ni moom. non xam naa loolu waaye bu kenn xëj taabal. xale laa ni moom. Eh, dégg nga bu leen taabal ji bu ma la yéenuwul yow daanu ma la. ah eh, yow yow sa combat yëpp dañ la yéenu dóor la si yow bee bis mi gën a neew dóor la ci lam ji moo la yéenu boo nga taxaw dóor la suuf. boo bëggee côté naa yéenu la dóor yow dañ laa yéenu ba nga sonn. eh déggoo yow xam ñooñu maa ndax yéenu fuuf dama la koy wax pour nga xam ko. Ronaldinho ah, eh dama koy daan par eh. force mu di ko neex mu di ko naqar bu neexee yàlla suñu borom combat bi daa ci war dana ci war warul la man la war lu leer laa la dama bëgg nga dégg loolu li war ci combat bi man la war yow waru la yow da nga dem ma dem ba sonn mënoo dem nga taxaw xaar ñu ci yoon bi ñu ñëw yaa may dégg eh sa sikkim bi bu ma la langaa moo nga xam yow billaay dina la duma dinaa la daan maa di ree jooyal daan farfos mënoo si dara bu neexee yàlla suñu borom billahi wallahi maa la wax kii nii ah. bar tege loxoom laa la xanaa mu daw gën gën stade bi gën mu gën barrière yi eh, ah, ah, stade moom desu ko gën Ronaldinho eh. ay règlement am ca làmb ja de. ki dañu war a may fii nii tuuti foofu moom may loolu moom kooñaa kenn du ko def loolu kay duñ ko def di ree duñ ko def di jooy ndax man su keroogee danaa summeeku moom bu ci may nar kay danaa summeeku kon songo bi dana bëri bëree fii kenn wax la ma bu leen bëree fii moom bu leen bëree fii bàyyi leen ba arène arène nii ñaar dinaa na baat jant bi sona kay naa daan arène nationale bu neex yàlla borom dinañ dajewaat si àll bi naa daan bu neex yàlla suñu borom bu neex na waa ji taxaw nga ma laaj fekk na ma ndindi ndindi ñaara ko ba laa fa bëre ñuy dugalaat ay nit mu 15 combat door dem final sa waay ah idi ndindi bugu laaj ko bëre dóor magam ma ngi final kon leer na wax wax de Père Max Mbargane noonu wax day waaye loolu lépp loolu lépp mooy ñoom ñaari man daal te defe naa ñëpp xam nañ ko ñaar ñii loo ci mën a dégg la ngañ jaañ xaw ma ne woon dafaa géey dëgg bàcc seeraas combat la day bëri tàkk-tàkk waaye lii combat jinne dana am tàkk-tàkk nag damaa bëgg ngeen woote bu ko defee ñaar ñiy ñëw toog parce que idaal sax tey li tax ma ko yéex a jox mooy li mu def nii boo ko defee doo ko boolee ki wax da noppi rek tey seetaan mooy dàq cim ndaje looy looy mujj wax idaali idaali wax maa koy sant bu a baax a baax hmm. a li daal dañ koy sant bu baax a baax parce morom la kii moromam la man sama grand frère la yaa may maa koy san bu baax a baax parce que combat bi kii nag suñu moroomu ndaw la na ngeen fexe boog lépp lu waay waxanteeg moom ci combat yi na ko def te nga andi loo xam ne ni ku gis combat dina sawar pour pour beneen yoon pour ñu tegaat la mais waxuñu nga andi fi comme ça calendrier bi nga fi andi woon combat yi passé na nga fexe ba na nga mobiliser nga ñëw ma duma la daan la nga dem ñibbi waat te ngeej samay mbokk di woo waa Touba Toul ñëpp sama famille maam maa leen di woo bu baax baax baax di woo groupe Touba Toul xam nga maa leen di woo bu a baax di woo Amet Dieye di jiital Amet Dieye maa ngi koy woo bu baax a baax Touba Toul maa ferte maa leen di woo yen ñëpp autorité autorité yi ne ci groupe bi yëpp maa leen di woo ngeen jàpp ci combat bi yéen ñëpp maa leen di woo parce que combat bi suñ combat li ci war waru ko man la war lépp lu war ci combat bi man maa war def maa ñëw war a ñëw appliquer lépp gagné combat dem ñibbi di woo waa Touba Toul gépp waa Newraan maa leen di bu baax baax di woo sama waa dëkk waa Sambaay Seeseen Njon ci la di woo sëñ Mbacke Sylla sëñ Xaadim Sylla waa ci la maa leen di woo bu baax a baax a baax ci combat bi di woo ke Diop maa lay woo ci combat bi di wax combat bi sa combat la non Ablaye Diop la rek bàyyil noonu waaw maa koy woo bu baax yaa ma di Babou Sarr maa lay woo borom Joal di la wax ne combat bi sa combat la waa Jilas ñëpp maa leen di woo ci combat bi parce que combat bi sama combat la waaw di di di nuyu Baye Massamba Niang Baye Jili Tarkinda ginnaaw yàlla combat bi moo tax mu taxaw Baye Jili Tarkinda maa ngi koy sant bu baax a baax a baax barki Sëñ Fall Tarkinda bi combat bi moom laa koy bëreel billaahi wallaahi waa ji bu taxawee. Hmm. billaahi dama dama dama. kii non sama yaram dafa tàng quoi kii war na ñëw fii barke yàlla nañ sol glace rek garaaw kii dama xam ne kii dama ko mën a jàngal bëre bu pare ne fii waaw nañ bàyyi ba ba di ko jàngal bëre arbitre dinañ soufflé bu ko nangoo kaay yow looy tàggoo Ronaldinho Ababacar waaw dafa am loo xam te bu yàggee sax amaana suñu naw yi si biti après di seetaan yaakaar naa daf ñuy dañ a sax manque de respect parce affaire bi warul nuru ne mbër dof la rek dof war a def yëfi dof d' lii day neex signature mais nit da ngay def sa bopp responsabilité parce que am na yoo xam ne jaru ko am na yoo xam ne jaru ko quoi affaire bi jeexee jeex na xam lay laay def bàyyi wax ji mu seet ba bés ba bu bés ba bu neexee yàlla suñu borom. incha allah yàlla nañ ko fekk yàlla nañu yàlla mooy képp ku fi teeku ne rek yàlla na yàlla may bakken bii. ñun man ka talkata fekk ko ñun ñëpp àndandoo dem esat ci kàttanu yàlla incha allah bu neex yàlla ñu borom ku naa de day jooyaat mais maa ngi woo samay mbokk yëpp samay mbokk lébu yëpp bàyyiwuma kenn damay woo ñëpp ci may njëkke mooy sama benn grand boo xam ne dafa may jàppale dafa tawatoon Mamadou Sy maa ngi koy ñaanal tamit yàlla yëkkiwaat ko yàlla defal ko jàmm parce que macha allah combat bi passé jàpp na si bu baax a baax a baax baax a baax ku mel ni Ségo Ndoye jàpp na si bu baax te dama koy woowaat monsieur le maire Albin Ndoye dama koy woowaat bu bu baax mu ñëw jàpp si di woo nag sama mbokk lewu yi muy waa Cëw leen maa ngi leen di woo mu ñëw bu baax a baax a baax a baax a baax boo ma déggee amaana nit mënu la dab boo ma déggee na nga ñëw jàpp si bu baax di woo tënjee jépp bàyyi ma kenn moom na ree nekk di lim damay juum boo fa dëgg yàlla parce que boo limee ki bàyyi kii nit dafa gàtt xel wóorul mais maa ngi woo waa tëngéej yëpp ma kenn di jégalu nag hmm. lépp loo xam te ne man personnel ñëw wax naa ko mu doon loo xam te ne débordé na maa ngi jégalu hmm. te xam ne nit matul nit matul ay hmm. doomu aadama lañ am na solo dañoo bëgg rek mu neex. dina neex sax incha te neex na ba pare. kon dañuy ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal jàmm. may ñu fanu gudd. may ñu wér gu yaram. may ñu tal ak man ak fekke. boobu bés boobu. maa ngi àndal ak Galas Diagne Seeri Ulay Assane Sarr Seeri Asu. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Cheikh Sinoa. xam nga borom ndar. waaw borom siin maa ngi koy nuyu di ko woo ci tamit ak Babou Sarr maa ngi koy waat ci bu baax a Baye Sall Diop sama si Amar maa ngi koy woo mhm. xam nga di nuyu Abdou Faye sama Galas mhm. sama doom bajan Lamine Faye Lamine Bidik maa ngi koy woo ci bu baax waa di woo Cheikh Bokum Bekaay mhm. maa ngi koy woo bu baax di woo Ousmane Ndoye suñu maire maa ngi woo bu baax Ousmane Ndoye ñëpp meeru la Babacar maa ngi lay fay di di sama ñaari waajur di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi te wér di ko ñaanal Baye Jili borom léegi léegi di ko ñaanal Cheikh Ndiéguène Sène ñooñu ñoo may ñaanal fu ma nekk ñoom lay tëjee ñoom lay ubbee waaw di ñaanal sama sëriñ nag waa kër Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane ñëpp suñu borom bàyyi leen fi ba ci kanam mm-hmm. ay ndaw lañ nañ ñu ñaanal am na lu ñuy bëgg mm-hmm. ay gone lañ maa ngi nuy staff ñu ngi production bi yëpp ku mel ni ñoom Serigne Faye mm-hmm. Grand Paul Maurice ñoom Kaana ñoom Saliou Ba Abdoulaye Ndiaye ñi jàppale ñoom ci yëpp ay ñoom Omar Saliou xam nga ñoom muur anta dañuy jàpp ci cent pour cent bi ñoom ñëpp dañuy jàppale ñi ngi production mhm. te ragal fiir day xañ a wërsëg mhm. maa leen ñaanal suñu borom sàmm leen mhm. di wax ne ñi ngi nuyu saal bi yëpp daal di wax ne combat bi daal combat la boo xam ne nan ñaan yàlla ñu fekk ko jàmm kii sant eh, eh, sant sant yàlla rek sant yàlla la loolu ndax eh, tey defaluñu yàlla lu tax maame ko tey jii moom mu war a dem ci gaal ba ñuy am kàttan man-man di di seq relation di ko jox avance boo xam ne tey waaw moo ko tax a taxaw ndax euh, yàlla mm-hmm. da li bind lépp ci bis ak waxtu la koy def mm-hmm. amaana li ñuy wax rek combat bi am nañu ko bëggoon mm-hmm. ma ci sant nag maam ñaaw mi nga xamee ne moo yor Ronaldinho waaw di nuyu Sawru Fall mi nga xamee ne tam moo yor ki yombalal nañ ma ko waaw ba pare yéene ma ko daal kon nag maa ngi ñaan yéene ji yàlla na ko suñu borom àggale ba li ci bëgg lépp ñu àggale ko daal waaw di wax ne nag bàyyi li affaire naa bi itam faw mu bëri ndax bari ñi gé wala boog jam ñaajo la ak géejawaay bi yoon dab daan waaw ku ne xam na ko bu jam ñaajo moom itam macha allah comme li ma sànq rek soo ko gisee man nga jàqar ne sax du mbër waaye su bëree nga xam ne mbëray bëree waaye nag ak nii moom boo ko fekkee mu toog noonu leneen nga koy jaawale sax doo xalaat ne kii day sëgg ci làmb ji di bëree parce que nit ku ne xëy na am nga sa style am na benn image booy incarné ci sa yaram moom xëy na loolu la ko yàlla may mu di incarné façon image bii waaye mbër la moo xam ne soit bi yi nga xam ne bëreekat la ki mu ko seqal nag muy mbaytin moom moom mbër mu am métier laa ko tudd ndax boo demee patal sa da nga koy fekk ca loolu dafa baax mbër ndax père Max Mbargane da doon wax ne làmb tegandaay la comme tegandaay la nag mbër da ngay am métier te moom da nga koy fekk peut-être seen muy wanteer ne ci affaire yi waaye bu bëri jotee nag su bëri itam nga xam ne mbër yi kon ba tey idaali ñi moo fa jaar xam naa maam ñaaw sax dinaa ko fi jox mu am fi mu fi sànni moo ko mel ni Paul Maurice mii waaye balaa may ñëw ci ñoom damay wax ñaari mbir ñu nuyoo ba pare dab daan maa ngi lay bëgg di la ziar a'uzu billahi min shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaaw sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaanal sama bu góor yàlla ko fi yàlla bàyyi ñu yàgg fi loolu di wër di waajur bu jigéen yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana yàlla na suuf Tuuba oyof ci kawam di sant jam ñaaju bi yëpp 1 ba 22 bàyyiwuma sant sama gaay yi ma ku fi mel ni Balla Ndiaye monsieur milliardaire Balaat Jaan ak armée bu ngéwal leen sant bu baaxaw ma seen fay di sant Moussa le maire Mamadou Moulaye Gueye di ko woo combat bi la Adama Mohamed Mbaye Pape Seck Waly Faye El Hadj Baba Mal jam ñaaju bi yëpp bàyyiwuma kenn waaw ñu yem foofu doxal ba ci kanam incha di sant Combaar Sall waaw bu baax xam nga mhm. sama grand suma xarit suma doom day waaw sant kenkaayari bi yëpp jaay koo koy dab daan bu bari ñi wala boog bu jam ñaajo waaye jam ñaajo ak bari ñi daa mel ni benn dëkk la rek sorante wuñu kër yi dañuy séenante mbaytin maa ngi lay ziar borom géejawaay delloo ziar Babacar waaw ginnaaw ma sant waaye liiru ne moom moom géejawaay sax de maa ngi jéglu ci baat boobu liiru jànne na moom moom géejawaay maa ngi lay bég ma sant maa ngi sant samay ñaari waajur di sant waa géej waay gi ma jógee yëpp waa di sant sama gaay yu àndal ki su mel ni dund ak Macha Perera di ko ñaanal xam ci ndam ci combat bi mu jëm moom toujours prêt waa di bëggee sama booy ñoom Pape Kane suul ama suul jin ak sama raq bi Aruna waa di bëggee sama doom nday Modou maa ngi sant bu baax di bëggee meeram tamit xam waa xam ndax ñoom ñu ngi ciy jàpp ko waa di bëggee sama patron la dëggee numéro 2 hmm. waa di ko wax nag waa mbër taxawaay gis nañ ko barke Serigne Bamba dina ñaanal ndam sa combat ak Eumeu Sène nga am si xamoon ndam lu seddu guy géej waaye képp gu fa am combat rek waaw yàlla may la ndam. ñaanal nga lak waaye dañuy continuer xam naa ñaanal lak sax moom est doo njëkk a régler sëñ mbir ba pare yàgg dab mi parce que dégg naa sànq fi mu sànnil ay baat nee na xaw ma ci waalo nga ne xaw ma ci ladd guerre nee na mbaa doo takk téere dellu ginnaaw arrière. non kii moom day wax rek mais man moom a Babacar man billaay walaay mosoo gis ma arrière ci làmb lu tax du arrière mukk du ma xaw ma ko sax dab daan mi doo ko arrièreal billaay walaay ba damay dox ci kawam wóor na loolu incha allah dama koy duma jàpp ko daan ko ndax war a dem nekkul kii moo may téye du ma doo moromam te mu lekk sama billaay walaay du ma téye te bu jour ba lay comprendre mbay est-ce que xam nga ne mbër ngay bëre kii lay mbër kii di comédien ah. da nga koo gis ak ñoom Sanex wala ñoom sëñ Ngañ wala. baabu ko déggoo de kii bu jour ba lay comprendre. Hmm. waa man xam nga daa fu ma teg sama bët ci làmb quoi mais du kii. du kii ah. kon daal bu ma la déggee ci wàllum dooleeg bëreeg yooyu bokku ngeen ci daal. waaw est-ce que loolu mu est-ce li ngay wax nii loo gëm la wala lu fi ne la. incha allah lu may wax nii moom laay appliqué man aw ma leen lu may waa ragal diit. jege diit séeréer wax de. waaw séeréer jege diit aw ma leen lu may ragal. te bu jour ba billaay wallaay bu dëggalee boppam combat bi du yàgg. kon dab daan mi daal ragaloo ci moom lenn. Hmm. Babacar man dama moo teg sama bët ci lam mais du kii. Hmm. waaw waaw lam moo tëre rek mais billaay wallaay du ma kii. du yàgg moom. Hmm. dab daan wax ji leer na de dana du yéen ñaar parce que comédien sax la wax moom. mooy nuyu nag comédiens yi parce que ñu ngi bëggal réew mi di def lu ama am solo ñoom comédiens yëpp nag am naa ci nag ay préféré waaye ñoom ñëpp laay ziar rek leen jàmm. man bu ma demee ba làmb wala mag Mbaye ma war a bëre ak moom xam nga dama koy nangul champion am champion la ndaanaam la looloo tax ma jël ko su nekk woon champion duma ko jël parce que xalaatuma bëre ak mbër bu mënul bëre xalaatuma bëre ak comédien parce que ñëw ma si làmb ji pour comédie làmb moom ma ñor ma xam ni mbër la mat na mbër ma jël ko mbër boo demee ba ki ngay bëree matul mbër bu lekk avance am mbër gi mu doon moo tax ma lekk avance am mu nekkoon keneen la du ma lekk avance am làmb la làmb day jeex après làmb dafa am. Mm-hmm. kon xam nga bu ñuy wax xam nga ah ay comédien ay nangam yooyu noonu xam nga amu fi amu fi place parce que gisuñu fi Sanex gisuñu fi Serigne Ngagne kon li nga ko wax. waaw kon comédien kon amu fi place. man la ak moom te si kàttanu yàlla ak mbaaxam incha allahu rabbi bëre naa grand combat bëreeti grand combat moom taxul man ma bëre grand combat parce que xam dama dégg ci yenn ay waxam mu koy wax. mu koy wax. nanguwoo loolu non nanguwuma loolu parce que boo leen xoolee làmb xam ni moom taxul ma bëre grand combat bëre naa soose maane grand combat ah hmm. daan ko bari bëre yeneen ak yeneen nga jam. non deux jam non non jam cëri bu kayaar moom moo ma daan. Ah. waaw moo ma daan parce que tamit wax dëgg fa yàlla làmb lañ nekk man xam nga lépp lu ma wax lu nekk xam nga boo ko gësoo gis ko. du ma wax pour neexal damay wax li am. maa ngi moom nag ñoo war a bëre ci kàttanu yàlla dama ne. dab daan bu doon foowee làmb. moo am ci làmb li mu am ci làmb. yaa ngi may dégg. dab daan bi doon foowee làmb. moo am ci làmb lii mu am ci làmb. bi ko doon foowee mais dab daan bi jox làmb gëddëm. après fan la làmb war a yóbbu ñu teg foofu suñu loxo ñu xool. lii xew lenn nag moo xew. Mbaye Tine dama ko respecté trop sérieusement bu lépp rombee parce que lamb mooma booleeg moom après lamb dafa am mbër laa mbër la après lamb dañuy nekkaat man ak moom xam nga suñu xamante day continuer si kaw su ko bëggee parce que man jaamu laay wër si biir lamb ñu nag amul jaamu maak moom ah bu ngeen buñ sumee daal yi suñ sumee daal yi ba dugg si géew bi amul jaamu dañuy jongante wàllu teen la jeex na mbaytin bi laay walaay ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dama koy daan ah xam na dama koy daan waaye dab dee waat waat ma de si kàttanu yàlla ak mbaaxam parce que yàlla kattanam ak mbaaxam ak yërmandeem lay defee lépp ñoo ngi taalal suñu loxo moom yàlla suñu borom di ko ko ñaan defal ndànk rek ma wax la dafa am ñoo xamante nii ku fi mel ni Waly fay dafa bàyyi léppam ñëw sama kër téema ubbi salle musculation jox ma na ma dab daan ma ne ko waaw mu ne ma sant ma la dara am nga taay te am nga tur ci làmb ku la jàppale nga dem def li muy war a def lépp ci man kon ko wax noonu njukkal bi ma ko war a delloo ku fi mel ni Adama Mouhamed Mbaye lépp lu may dugg lu ne moo ngi ci yëkkati alalam di ma jox ku fi mel ni Moussa le maire Mamadou Moulaye Gueye noonu ku fi mel ni pap Pape ndaw Seck ku fi mel ni El baaba Baba Maal woo bu ma ñëw mu ne ma booy. da nga ah Maal benn la senegal dand la kenn la senegal am nga wax ji nag wax ji lenn la. baytin billaay wallaay taalaay bu lépp wëyee. waaw gënuma pare ci làmb bu fekkee xeex maa ko xeex billaay wallaay taalaay. est-ce que de dama jàng xeex soog a bëre. ban ban xeex. na ko wëri ji bu gëstoo xëy na dina xam ñu ci bëri dañu réer mbir bëri naa mbër bu ne bu ma duggee ci géew bañ dajante runkum su boobaa nga naan est-ce que waa ji moom laa nekkaloon damay bañ loolu daal ko. maanaam mu trompé wu. na waa ji yàlla xam ni ni dama koy daan man ma sax ñu ma nekkal tegu ma sama bët ci ay mbaytinde parce que moom wax na ko dafa daan ay champion ba pare wëlbatiku. premier grand combat am mu ne comédien laa jël est la. yow la def comédien. waaw la ñu mu doon bëree lan la doon bëree ñoom. ko war a laaj. voilà loolu man du ko jàll benn baat xam si communication pour ñun suñu biir foog ñu jàngiwaat communication ni ngay waxee ak san moroomu nawle su ëllëgee beneen yoon bu làmb ja rombee doo am yeddaange. du ma ko wax mukk lu ma ko war te wax lépp lu ma ko wax rek ci sport lay yem mais yow dégg naa la fi sax nga ne ko maanaam booy ñëw na nga mooy comme nga ca Lac de nga loolu yëpp sax waaw xam nga yaa ko ko wax waaw loolu yëpp loolu yëpp maa ko wax xëy na ba ma ko koy wax <laughs> ah, ma ko koy wax waaye naa nga waal naa mais Lac de Guiers xam nga suñu grand la xam nga champion la ndaanaan la mbër bu ma jox cër la waaw xam nga ah, champion moo tax mu am li mu am ci làmb man duma salte la mais arrière bi kay la ñuy wax loolu. ndaanaan la Lac de Guiers ndaanaan la bërekat la. yow yaa ne mbër xanaa nekk bërekat moo tax. xam nga benn mbër moo ko fi daan kan Eumeu Sène mooy ko revanche ñu war a dajawaat kon champion la ndaanaan la. lu moom mais xam nga lan laa bëgg. Ah. sama bët ci moom Lac de Guiers laa ko teg. déedwaay waaw kon xooloo mbay mi. no mbay xooluma ko sérieusement. ñoo war a daje nag jox naa ko cër parce que su ko daanul du ma bëreeg laa ñaari njool ngeen da yàgg la yàlla baax ngeen xeexee ci kaw ñaajo bi yëpp kooña waaw comme ça moom xale la 96 ans nee na maa ko mag du ma moroomam kon booy la sama kanam moo tax ma ne ko booy jox ko cër boobu noonu xale la ah, ko ko mhm. di di ko ñaanal sa yoon foofu sama yoon mu ngi fi leeral ko nit ñi kon a jege gën a yaay Ronaldinho waaw dañu bokk. lu leen boole. jam ñaari laa dëkk mu dëkk Tëngéej ba ma ñëwee dafa jaar sama tur am ñu ma laaj. ma jaar si turam am ñu ma ko laaj. Koña lool nag du dara. xam champion nga naataanga lépp loo bëgg ci làmb yàlla na la ko yàlla defal mais kii yàlla na la daan ci kàttanu yàlla. làmb làmb la rek waaw. man daal man nag man nag daab daan mii nag mu may bëgg daab daal wax na li nekk nit da ngay wax li yàgg ma. non àdduna moom la amul leneen. amul leneen te yàlla xam na ni ku yaakaar ni man ak mbaytin dina yomb. waaw yaa ngi nax sa bopp. parce que nee na ma da ngay ñëw tëdd ma ne ko non bëgguma ñëw rek tëdd bu boobaa day yomb ci yow. waaw wax na la ko nañ jëfante. bu ko defee ñi ñëw seetaan si kontaan. ngeen dem si sëriñ naan teel fii teel fii teel fii bu war bi naa ko buux mu daanu yooyu làmb sëriñ la. mais ñaari góor yàlla yu jëflante taxaw war na mën a neex waa. yow bëggoo làmb sëriñ. non bëgguma làmb sëriñ. dóorante xaw ma sax nu mu tudd. ah doo laaj day jaar sama tur. yàlla xam na ne ak waxtu yàlla bi xaw ma nu mu tudd laajtewu ma turam li jëntewu ma ko. mais da est-ce que àndul ak ay lépp lu mu mën ci man na ko def. yàlla fi ne. waaw ah, loolu de am na moom dong ngay yàlla de. ñoo ngi taalal yàlla suñuy loxo samat la de. waaw. mbay foofu la wasalaam. sa waay dégg nga sa waay mii daa mel ni day. sànq ma fàtte maa ngi grand Paul. ak fay waaye kii. kii waaw ñooñu kañ idaali non di nga ñëw ci maa dama kay dama dama bëgg kii gars yi gën a jàppale idaali kay des na ko jàppale waaye yow kii waaw kii dégg nga lim la fi wax non kii moom waaw li ma la wax rek man dama koy bàyyi wax ji Babacar comme te nee na moom dafa jàngi xeex bu jour ba na ñëw dëggal boobu ñu jëflante ma ak moom dóor mu daanu mën naa am waaw bañ ko mën a am hmm. incha allahu rek bu jour bu taxee boobu dëggale boobum ma ak moom bu soobee suñu boobu ñu jëflante moom ne nag kee la faral yow foofu ka foo faral ci ñaar ñi ci Koña. combat bi moom waa que le meilleur gagne mais Koña sama waay la ñoo euh, man Colobane may dóore moom. faral ak moom rek man tamit su ma ñaar ak dëgg yàlla moom laay ñaaraan ndam quoi. waaw ndax Baye Jili mee nga xamante ne ku ne séddoo kenn rek. Baye moo ko yor Baye Jili sama gaañ la. waaw kon kay waaw Baye Jili waaw moom sama waay la quoi. kon Ronaldinho yaa nga ca dab daan Koña ya nga ca mbaytin <laughs> bés ba daal di neex. en li ma koy wax mooy bu jour ba bu jour ba nañ neexal làmb ji rek waaw nu mobiliser te teel a ñëw fekk waaw bi mbooloo mi na ñëw waaw man moom promoteur bi da koy soxla mu doon ta combat bi kombaa combat géejawaay la gunaas ñetti mbaar baxdaad ñàgg mm-hmm. kolobaan petersen ñëpp a ngi waajal combat bi incha allahu rabbi bu dee duy dama koy duy ba mu fees dell man Mbaye Tine maa leen ko wax nee na xoolu la Lac de sa la teg bët bi non kii moom làmb du dox dox ba mu bëri la de Guiers 2 ci làmb loo wax li billaahi wallaahi mënta nekk làmb du dox dox ba mu bëri Lac de Guiers numéro 2 Babacar kii si man lay tëjee làmbinam ma maa ngi lay dégg bu baax kii nii si man lay tëjee làmbinam waaw su ma la xoolee rek gëm ko ah na doo bëreeg Lac làmb dox moom ah, ba mu bëreeg Ama Baldé moom yàlla na làmb dox daa bëgg bëreeg Ama de non xaw ma xaw ma non xaw ma dama ne dama ne su fekkee que ni war na bëreeg moom ñaanal ko quoi pour li ah, gën ci moom waaw yàlla na ko yàlla dimbali ba mu bëreeg Ama mais man Iba si kàttanu yàlla kon lu muy wax naan ma Iba Iba jam kon li muy wax man Iba si kàttanu yàlla ak mbaaxam su arbitre bi sifflé Mbaye Tine dama koy daan jël bu rëy waaye duñ dégg Ibrahima Nguer loolu lu a dee waaw ma déggolu wuy ma lenn laa gëm te déggoo xanaa da ngeen di wërantey tur nii yàlla xam ne ne non dama la wuy ma da nga may déglu waal ma bàyyi la ko wax waaw d'accord ba tey mais dama la bëgg xamal dara ah dama la bëgg xamal dara mënoo dara ci man xam nga lan laa bete bete pire laa du ma tàgg suma bopp lu leer laa la wax du ma def nit lu tol nii mais loo jéem ci man nga wayadi te bu làmbu jaa foo dugg xam nga yaa ma xëy wax naa ma dugg nga fii xam naa fii xam naa fee xam non da ngay wax di dellu na non kan moo ñëwoon kan moo ñëwoon kan moo ñëwoon téléphone par téléphone. Ah, man am fu ngeen daje. non non non non non non non daje carrément fi ngay dem sëriñ ay 2000 francs moom moo ko wax ma la waxee dafa am. déggoo man loolu mooy ko wax lu ma ko wax lu dama koy wax maa ko wax. lu mu yor sëriñu 2000 francs moo ay sëriñam 2000 francs bopp la yor man maa ko wax bopp bi. waaw loolu noonu xam man maa ko wax par téléphone. maa ko par téléphone. buñ toogee dama ko koy delloowaat mais moom non pas wootante téléphone dafa am benn émission bu mu doon def gars yi ci ma dugg ci benn bu may def ñu wooxu mu dugg ci moom li ma waxoon ci émission bi na ko wax bopp buy métti bés ko moccul du wóor de waaw dama ne borom bopp buy metti moom yelloo na ñu mocc kon moom moo tax muy wër ji ay sëriñu mot yow nag mbay kii xeeb na say maanaam ne sëriñu bopp buy metti waaw moom moom maanaam moom maanaam mooy <laughs> tamit ay maara ay maara ay ay maara lañ noonu. moom combat bi dañ ko wax lu leer quoi. waaw ni ah? eh, eh, lu leer nañi. waaw soo bëree ma daan la boo xeexee ma jàngal la. maanaam moom komba dañ ko wax lu leer nañi. Ah? ah man bëri naa ak mbër mu ne man booy la booy la ëpp ngemb laa bëri daan leen. si amay de kon yow man booy wax. ay waxu ngemb ay ree nga may def. mënoo may dégg mënoo bëreeg mbër bu moo bu xaalis. dama la non non ma de. non dafa ndànk yaa fi wax ngemb ci ngemb lañ toll ci point boobu lañ toll. non pas ay doole bu ñu eggee si doole yaakaar wala billaahi daan ci làmb. baytin maa la doole dèjà xoola yow ku bu leen laalante woyu ma non bu leen laalante non bu leen laalante waa voilà taxaw leen rek waaw bu leen laalante non bu laalante bu leen bu leen laalante bu leen laalante lii moo ngi nii tànk bii nii moo mboot au sóodu au sóodu ay ndaanaan la bëreel dama ko tegal tànk moo daan saala moo daan soose maana ñan nga Ah, waa kaay leen toog asi toog leen toog leen dab daan toogal mbaytin toogal toog leen waa waa toog leen waa toog leen waa toog leen mbëru toog leen wàcc leen wàcc leen ñu jeexal neex na mbir ma neex na déet waaye nag déet nag ma de Bambey yow xamoo Bambey xamoo ko ah sama département bu ko saboté côté jam ñaar yow itam man nag d'accorduma ci loolu kat ah man dam Bambey sama département yow itam ah waaw méttiwul <laughs> mais Bambey mu nga ca région de Diourbel ah, waaw booy de kon xam nga Bambey ah, <laughs> mais mas nga faa jaar non ah. <laughs> dee naa tey sama gaay woyu ma waa léegi waa léegi baax na léegi damay ñëw ngeen tàggoo léegi may leen yow ñaata victoire la am ci làmb ñaata wax di kii na laamu te xamoo looy wax doo bàyyi wax bi bëreegu ma Dakar mooy lan. waaye baa yi ngay def waay. sama waa ji wuy ma. waaw léegi garaawut léegi jaamu ma daan la. déglu ma ma daan la dalal la teg la ci yoon nga dem. waa léegi ga Mbaye Tine. Eh, eh, eh, waaw loolu dëgg la Mbaye. ñi nga wax ñoo ñoo ma daan. dab daan ay ndaanaan ñoo ma daan. dab daan waa léegi war a bëreel tey. ah maam Balla top 5. maam Balla top 5 la war a bëreel ndaanaan la. bërekat la non danga may déglu nag soo bëggee ñu waxtaan mu neex. yow kan yow moo la daan ku war a bëreeg Mame wala ku war a bëreeg catégorie Mame Balla la daan kan moo fi war kat kan moo fi war a bëreeg catégorie Mame Balla non limal non non dañuy waxtaan de li ngay wax ni day bolofe nit ñi waxal lu leer. waa léegi woyu ma léegi mbaytin léegi ma léegi nag léegi dañoo war a jeexal quoi parce que toogaay bi yàgg na waxtaan mi neex na am na solo trop maam ñaaw laay woo mu ñëw am sànni kàddu ci sànni moom ak Paul Maurice ana maam ñaaw kaay bu ko defee non non di ngeen tàggoo damay ñëw ngeen tàggoo non yéen moom waxante mënatulaat loolu kay jeex na ñoom ji li ñee jël nañ ko ba pare li ngeen waxante kay leer na nañ yow kii wax na la wax nga ko lu ne waxante ngeen voilà bu la daanee nga bàyyi lamb voilà lool kay leer na nee na waaw moom nee na boo ko mu ne kon bu jour baa di nga bàyyi làmb dab daan kon jeex na. incha allah bu subaa. gars yi waa ga waa léegi waa léegi maam ñaaw. gars yi fi mu toogee baax na wala. ci cat bi ngay toog ci baax na a dugg nii gën a yi maam ñaaw gars yi ah? lay bëgg di la lii idaali def nii noo ko gisee yow en tant que manager ku nekk ci biir làmb di doxal làmb yor ay mbër. waaw Babacar maa ngi lay ziar. Mm, na nga lay delloo ziar di la jox sa wàccuwaay. di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa fi fekk. Mm-hmm. ak champion yi nga xamante ne ni ñoom ñoo toog war a jëflante. mais en même temps ak promoteur bi. donc comme ni ñu ko waxee rek si làmb lañ ne. Mm-hmm. wala ñuy def dara dañuy jaale ki nga xamante ne mooy suñu pap génn Père Balla Gaye mm-hmm. di ko ñaanal yàlla. fi mu jëm gënal ko foofu fi nga xamante ne fii la jógee. du siyaar aussi tamit ki nga xamante ne mooy le président des managers mm-hmm. Basirou Babou nga xam ne vraiment mooy sunu kilifa mm-hmm. di ko jox wàcc waayam mm-hmm. donc di encourager wala di féliciter ki nga xam ne moo fi jógee di président Alioune Sarr ndax gis nañ fi mu jëlee làmb ak fi mu ko indi waaw def naa def na ci liggéey bu ama amam solo donte que nag mat moo xaw a jafe donc di ñaan yàlla ki nga xamante ne moo fi nekk di Bira Sène yàlla jàppale ko kattanal ko ba yaakaar bi nga xamante ne moom la mbëri am ci làmb ak promoteurs yi ak managers yi ak ñi nga xamante ne ñu ngi nekk sax stade di jaay di suturlu yaakaar bi ñu si am mu bañ a tas donc yàlla na yéen bi woyof ah Idaly moom wax dëgg fa yàlla dañ koy encouragé ndax ku déggal di Ronaldinho wax ne amaana bu duloon avance bi ma dem jël gaal gi dem donc loolu rek jar na encouragé ko di ko ñaanal aussi tamit li nga xamante ne moom la bëgg si saison bi yàlla defal ko ko champion yi mu tëgg fii nag mu nekk ay champion yoo xamante ne man xam naa leen ndax kii di Konia 2 mhm. xam naa ko bu baax mhm. mu nekk mbër boo xamante ne vraiment champion la mhm. li ma gën a nekk si moom mooy sport bi muy def daf ko bëgg maanaam dafa bëgg a làmb moom foo dajee moom bëre lay wax waxul leneen lu dul bëri nekk champion nekk ndaanaan vraiment di ko ñaanal jàmm am ménagère am sëwru bi ko yor nekk un doyen nekk koo xamante ne ku jox làmb cër la di war a daje ki nga xamante ne mooy ñëw ñu dëkk yàlla dogal ma yor ko moom aussi tamit mu nekk champion di ndaanaan donc ñoom ñaar combat bu jaadu la ndax kii dafa war a relancer carrière jóge si défaite kii war a confirmer carrière am jóge si victoire te ñu nekk ñoo xamante ne bu ñu bëree dañoo war a bëri di ñaan yàlla yàlla yóbbu leen si ak jàmm ak salaam que le meilleur gagne nga maayor kii parce que li yaakaar si làmb bëri na te ku nekk liñ nga si yaakaar yàlla na la ko yàlla defal di wax ne bu jour ba képp koo xamante ne toog na fii bu ñëwee foofu kontaan yàlla dogal ñu bëri lu neex combat bi nga xamante ne moo sopp di Ibra mhm. vraiment ma xam ko bu baax mhm. ñu dëkk Tëngéej mhm. di waxtaan lu bëri nekk koo xamante ne vraiment boo ko gisee da nga naan du mbër mais su bëree vraiment nga xam ne kii am na lu nekk ci moom donc bëgg làmb ñu gis ne doon na ko caaxaane waxal na ko boppam nit ki fu muy tollu ba ne day dem moom moo ko xam vraiment di leen wax ne aussi tamit ñu jéem a toog euh, ñu bokk ndey bokk bàyyi liggéey rek te xam ne làmb moom ku si nekk da ngay dugal sa loxo rek loo si daj nga xam ne loolu nga daj yal na yàlla def jàmm daal. amiin waay allah. waaw di ko wax ni xam nga lu fi maire bi bàyyi yaa ngi koy sàmm yal na la yàlla dooleel yal na la yàlla dooleel bu nga ko mën di ñaanal bépp yaay waaw di leen ñaanal jàmm ak salaam di ñaanal bépp waajur di sant Baba Traoré bu baax a baax waaw xam rek xel day fat di ko sant bu baax di sant Kambi bu baax a baax a baax di leen wax ni combat bi dafa am fu ma ko teg combat bi daa am fu ma war a yóbbuwaat ci làmb di wax ni waali Adam Mbaye Moussa la maire Mamadou Moulay géey Baba Mal yéen ñëpp ñu ma lim bàyyiwuma kenn di leen wax ni ngeen ñëw jàpp ci combat bi di sant suma yaay yaa Mbène Guèye maire bu sonn ci man yaagu lool depuis xale waaw di sant sama waa koñ yëpp maire Nday Seck di sant sama gaay waa ndaal yi ñu may àndal di sant ay seex Wade di sant Cheikh Ñing suma grand frère ku baax depuis xale sonn ci man di sant sama xarit yëpp bàyyiwuma kenn ku lim juum fi ñu toog tey xam am na si ñoo xamante nii moo leen tudd sax xel mooy fat di leen waaw di leen woo ñoom ñëpp di leen wax ñu ñëw jàpp di sant ay M Sow ñoom ñëpp nañ ñëw jàpp si combat bi combat bi seen combat la te képp ku dëkk jam ñaajo na xam ne bis bi sa bis sa dap mooy bëre ji de mais bis bi bisu waa jam ñaajo la di ñaanal mbaytin jàmm di ko ñaanal wër di ko ñaanal yaayam di ko ñaanal fameem di ko wax ne lii làmbala rek làmb moo ñu boole bu jeexee jeex na man ak moom ay doomu nday lañ nekk ñu ay noonu waaw làmb ji nag mënul yomb day neex te incha allahu rabi dinaa ko daan jël bu rëy lool noonu laa lu may wax. looy tàggoo. waaw lu may tàggoo mooy maay sant waa Peter Sène sama doom ndey Babacar VIP moo fi jaar moo ma sant ak lay wàdd waaw Babacar bu la ma. Hmm. maa ngi sant sama booy mujjee ñëw muy eh, matériel bu saalum lum ak Ndongo maa ngi sant sama gars yi ma àndal bu baax ñoom Modou ñoom Mathia ñoom dund Aruna Soul Ama isa may dégg di sant waa géej waay gépp di sant écurie Waalo école du Balla Gaye écurie jàpp si combat bu baax waaw di sant nag sama waa dëkk waa Jilaas maa leen woo si combat bi ñu jàpp si bu baax waa Mbasis ñu jàpp si combat bi ndax combat bi waaw combat bu ma jaral la combat yi ma bëreel yëpp komba bii nii Babacar. Mhm. moom laa gën a fonk sama xama sama carrière. dëgg la bi mooy sama premier grand combat te xama damaa war a dem. si mhm. may dégg. Mhm. waa di wax gaa yi nag jàpp si combat bi ba maire bu Gunaas maa ngi lay woo nga jàpp si combat bi jënd ay bologu billet waaw jox gars yi xama ci kaar yi si amay dégg gars yi dem stade yëngal. waaw di woo sama doomu ndey Demba Saraxule. waaw di ko mu jàpp si billet di sant sama doomu ndey Mour Babacar Kër may jàppale. di ma doole nam ma dara heure su ma jógee entraînement ay ginaar la may jëndal barke Serigne Ba maa ngay sant bu baax waaw xam kii dafa may dooleel war na Serigne Ba maca mee xam na li may wax maca mee xam na li may wax bu baax isa may dégg kii mooy loolu naa lekk ginaar daa mel ni isa may dégg waaw xoola maa ngi sant la déggee numéro 2 maa ngi sant la déggee numéro may dégg Demba Saraxule combat bi sa combat la bokkum bokkum boo Salim Lac Rose ko dafa may dooleel Babacar di ma jàppale heure ma amee combat xaalis bi la yëkkati di ma may maa ngi wax combat bi mu gën see jàpp Issa Mbaye dégg maa ngi sant nag waa Pédar Sène man nag mbëru commerçant laa man Issa Issa Mbaye man commerçant yi ñoo may jàppale aw ma ministre aw ma dara man commerçant yi ñoo may dooleel réew mi dégg commerçant yi ñoo may xam nga ñoo may jàppale heure su ma amee combat Pédar Sène ak Colobane magasin yëpp a may jox xam nga mooy loolu bu jour ba ma jàpp dab daan duma ko daan ko dem ñibbi loolu leer na kon nag idaali kaay nuyu na waa Lagros moom bayte noo xaara tuuti dab daan toogal Lagros faw ma nuyoo fa madame Ebéran Céline maa ngi lay nuyu borom hôtel arc yàgg maar du mën a ñàkk faw ma nuyu ko Céline maa ngi koy bëgg idaali looy tëjee looy tàggoo et puis ma laaj la leen itam rek nga laale ko maanaam li nga jotagoo tëgg est-ce que am na yu des est-ce que lépp ci benn journée lay doon wala ñaata journée nga ko fas yéenee def waaw di wax ne auzu sant yàlla julli ci yonent bi lancé appel sama mbokki Bawol Bawol yëpp di wax ne man couleur Bawol laay défendre man doomu Bawol laa maa ngi dëkk dëkk bu ñu naan Lambaay ñaxab ñaxab laa dëkk waaw maa ngi wax sama mbokk yi nañ ñëw jàppale seen rak seen doom ñun lu ñu am Bawol lañ ko yóbbu Dakar dañ ko def ay tool di ci bay maa ngi wax nag ñëpp képp koy Bawol Bawol ma kenn di wax ne nañ ñëw jàppale ñu te xam ne ñun xale lañ am na lu ñuy bëgg te bañ di tàngamlu nit ki amul lu dul fa mu dëkk te ñun Bawol lañ dëkk moom la ñuy défendre kenn ku ne sa da ngay wax ne day woo dëkk bu dëkk waa Bawol nañuy jàppale seen doom yi ñu mu ñu lu dul Bawol beneen bi ci topp maa ngi wax bàyyi jiili borom léegi-léegi lii nii na ma ko ëmbal téel ma ko bu baax a baax bàyyi jiili borom léegi-léegi gis nañ ñaani bu baax a baax ñi ngi wax ne ñi ngi kontaan bu baax Cheikh Ndigal seen gàmm gin gàmm woon sori bële passé ñaanal nañu fa ñaan am solo ñu ciy kontaan bu baax wax nañ ñaani gis nañ ko waa Serigne Abdou Karim Mbacké nag moom képp xam na ne man ak moom moom waaw nit ak doomam la daal waaw mu may ñaanal di ma kàttanal di ma dooleel waaw bu may wax nag sama mbokki Bawol Bawol yi comme li ma wax sànq rek mbër yi ma tëgg nag aw ma seen fay ndax wax dëgg yàlla man ak ñoom ay morom lañ xañ na dañuy jàpp sax ñeneen maa leen mag mais ay di wax a def face à face nañ koy fonk xam ne boo xam wax na ma loo xam ne lu ma naqare la bugguma loolu su ma sañoon ñun ñu bokk ndey bokk baay ndax ñaanuma yàlla benn doomu aadama di ma woo téléphone mu bañ a yëkkati sama téléphone di la wuyu bañ laa wuyu su ma sañoon bu ku ma woo ma wax ak yow ku ma woo itam te jëluma laa itam na nga jàppe ne man du ma saar boobu man ñëpp laa bëgg di waxal xañ na nag jamono day toll foo xam ne su ma sañoon wax ak ñëpp mais ñi ngi wax daal waa beneen bi ci topp mooy mbaytin mi ak dab daan ñoom ñooy bëre grand combat bi ci euh, tournoi bi waaw ci yankaaw ak albarka kayre ak yu ci war a bëre ak caatu daaw defal grand combat bi mbaytin ñoo koy bëre beneen deuxième journée bi mooy euh, koña koña demi ak Ronaldinho ñooy bëre deuxième journée bi di wax ne nag waa làmb ñi ngi tàllal loxo ñëpp ñu gën ñoo ñaanal dooleel nu sponsor yi ñëw ba li ñu bëgg liggéey ñu liggéey ko am na yu ñuy bëgg nag ñu ngi ci te yaakaar nañ ne incha allah bu làmb doxee jëm ci kanam tuuti dinañ gis ne ñu ngi production ñun amateur lañ nekk nañ présidence d'une amateur deux ans relève bu fi nekk di làmb bi muy door ba fi mu toll xam nañ ko ñoom bayti ñi seen bappat ak ñoom Balla Gaye ak ñëpp fi la ñu fekk premier combat ba deuxième combat ba kenn ku ne grand combat bi nga bëree mën nañu wax ki nga bëreel di wax ne waa làmb nañ ma bàyyi ak sama staff bi ma àndal ku mel ne alaaj Serigne Faye alaaj seen sama xarit nga xamee ne maa moom guddeeg bëccëg ñooy ànd waa di nuyu ñëpp ñoom Aliou Dieye Kaana waa di wax ne ñaan nag sama waajuru góor ak sama waajuru jigéen suñ borom bàyyi leen fi ba naal yin bëgg a liggéey ak ñoom ñu àggale ko di wax ne nag képp koo xam ne ñàkk nga yaay itam ñu ngi lay wax ne la ñu ngi lay ñaanal suñu borom mu fa mu nekk fa mu tëdd mu lu waa fi mu jóge di ñaanal sama mbokk bawol bawol yëpp nag di wax ne li may tëjee daal mooy maa ngi woo sama mbokk bawol bawol yëpp man bawol rek moo ma ñor leneen ñoruma jaajëf